dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo wolof njaay nee na sàcc ndënd yomb na waaye foo ko tëggee moo jafe yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu wéyu yeeg Samba Surabali yi nga xam ne maanaam ñoo demoon ci journal Les Échos daal di koy caxte-caxte am na juróom benn si ñoom ñoo xam ne maanaam teg nañu leen loxo yéenekaay gi nee na waa section de recherche ñoo def lu ni mel ni ki démb maanaam mbir mi daan nay gaaw lool déglu nañ leen waaye nag ba leen dégloo ba pare dañu leen yóbbuwaat ci màkkaanu Les Échos maanaam ñu li nga xam ne maanaam mooy reconstitution des faits kenn ku nekk ne ko lan nga def ci mbir mi maanaam kenn ku nekk jaar fanga jaaroon Assane Samb xëy jël xalimaam ci yéenekaay gii di réew mi quotidien ne maanaam fajal sa bopp ki ma ngi mel ni tulleeg man la ci réew mi maanaam bu weesoo Samb Surabali yi nga xam ne ñoo demoon ci siège u Les Échos am na fi ay xale yu góor yoo xam ne jàppoon nañ fi benn xale bu jigéen maanaam ca Sacré-Cœur daal di koy jàpp yeew ko doxalee ak moom doxalin wu ñaawa ñaawa te nag réew mii di Sénégal maanaam kenn waru fee fajal sa bopp naam sax bu ñu la tooñee waroo fajal sa bopp li nga war a def mooy dem fa mbaxana doone benn te nag ñi nga xamante ni ñooy waa Les ko li ñu bind mooy Serigne Moustapha Sy njiitul Moustarchidine yi dafa amee coronavirus Assane Samb mu ne wax leen ma maanaam kan moo nekk ci réew mi ku dul feebar te loole nag Moustarchidine yi dañu ko war a xam ne nag adduna bi ñëppay feebar yéen a kaay gi du source a xëy di ñu xamal lañu na loola ci bandi yi yéen a kaay démb seen bëccëg bi metti woon na loola yéen a kaay gi di Sud bàyyi mbir moomee wax ci élection locale yi nga xam ne jàpp nañ xëccoo bi dina tar lool ci mairie bu ndakaaru ndax jamono ji bëri na ñu nekk ci parti APR ñoo xam ne maanaam ñoo ngi tungulu ngir nag nekk maire bu ndakaaru ñenn seeni gox yéen kaay gi nee na xëccoo bi bay boo ñëpp xaar ko diggante Abdoulaye Diouf sar ministre bi ñu dénk wàllu wér gi yaram geek Amadou Ba na Touré ak Aliou Ndoye yéen kaay gi di réew mi ko di mu xëy ci tabaski geek ñi nga xamante ne ñooy éleveurs yi maanaam sàmm yeek ñi nga xam ne maanaam ñoo doon jaay ay xar bëri na ñoo xam ne dañoo leboon banque maanaam jënd ay xar ngir def opération waaye duutu ñu ko dolleeti ci ndax seeni xar dafa daal di lamb te soo muy tuulee danañu am jafe-jafe ak waa banque ndax ñi nga xam ne ñooy yarkatu xar yi bëri na si ñoo xam ne mbir yi dañu koo daal di cheral ba maara day taali te askanu Sénégal coronavirus jàpp na leen ba nga xam ne ñu bari si ñoom seen poos yi dafa daal di fëq yéen a kaay gii de la turbine mu xëy di ñu xamal laan ñu du mbay mi nga xam ne ab virologue la moom nag daal na yëkkatay kàddu ne na Sénégal bu deful ndànk ci woppi coronavirus lu toll si ñaari téeméeri junni ci ay nit mën nañoo faatu ci wopp ji Seydou Mbaye ne maa ma ngi sunu bu ñu jëlul suñu matukaay lu leer laa wax yéen a kaay gii de la mu xëy di ñu xamal laan ñu union européenne ak tëjël gi nga xam ne maanaam tëjël na ko Sénégal ay espace loole nag maanaam indi na ay jafe-jafe ci VIP yi maanaam VIP yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal te waroon am ay rendez-vous ñoom jamono ji ñoo ngi caay jafe-jafe journal bii di lii Quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu en tout cas ñi ñàkk seen bakkan ci woppi coronavirus ci jamono ji daat nay tar lool la ndax nag sunu plateau médical bi ndax moo am ay jafe-jafeñ wala ay manquement wala dafa ñàkk ay moyens wala lu xew Abdoulaye Sow mi nga xam ne maanaam moo jiite chambre de commerce industrie agriculture bu ndakaaru maanaam moom akub délégation demoon nañu dajee ci ak waa MEDES ma de entreprises du Sénégal ca biir ndaje ma nag Abdoulaye Sow daan nay waxtaan ak waa MEDES ci lu jëm ci réforme économique yi nga xamante ni ñoom fas yéene nañ ko defa maanaam daan nay présenté waa MEDES feuille de route am yoon wi nga xam ne moom la bëgg a xàll jaar fi waaye nag di sàkku waa MEDES dugal ci seen loxo bu baax a baax président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES rafetlu na bu baax baax a baax bi nga xam ne Abdoulaye Sow ànd na ak moom maanaam ñëw ngir nag rencontré leen ngir nag waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci secteur privé bi ak lëngoo gi nga xam ne fas yéene nañ koo lëngoo ngir nag ay réforme économique ak yu si ajo président Mbagnick joob daan nay firndeel nag engagement bi nga xam ne maanaam MEDES fas yéene na ko jël ci nag wetu chambre de commerce industrie agriculture bu Ndakaaru ngir nag ñu mën a réussir maanaam daal mboole mission yoo xam ne daat nañu koy sumb président Mbagnick Diop na yaakaar daat nay am maanaam espoir ginnaaw bi Abdoulaye Sow Sow nekkee ci bopp chambre de commerce industrie agriculture de Dakar Abdoulaye Sow moom tim ca ndaje ma jël na ay kàddu ne jamono ji stabilité institutionnelle su amee ci chambre de commerce industrie agriculture de Dakar ginnaaw yàlla seeni xalaat yéen waa MEDES ak président Mbagnick Diop maanaam moo ko waral moo tax rencontre bu njëkk bi nga xam ne amal naa ko ma amal ka ak waa MEDES situation bi nga xam ne moom la Sénégal toll ak Covid 19 bi maanaam mënut a ñàkk secteur privé boo xam ne bu dëgër lay doon waaye nag bu nekk benn buy jàppalante ba tey moom Abdoulaye Sow njiital chambre de commerce nee na nag maanaam yaakaaram ji daan na koy wékk ci waa MEDES maanaam ci ndimbalal waa MEDES ngir nag mu mën a réussir maanaam mission yi nga xam ne daan na koy sumb ndax nag du ñu jëm ci partenariat chambre de commerce et industrie agriculture de Dakar ak mouvement des entreprises du Sénégal yéen kay gi di sunu lamb xëy di ñu xamal lan ñu écurie Ndakaaru jamono jii boobu muy tuule si tas tasar la jëm ndax lu toll ci fukk ak juróom ci ay combat ñu def am nañu si juróom ñaar ci ay victoire am juróom ñett ci ba léegi ni maanaam amuñu kàngam boo xam ne mooy jiite écurie ba stade yéen kaay mu ñu xamal laan ñu débat laa jamono ci maanaam moo nekk meilleur joueur ci Italie Ismaïla Sarr bëri na ay équipe yoo xam ne maanaam bëgg nañ ko ci Angleterre waaye nag wax ñu waxante dëgg mennum Liverpool mooy dox farata mooy dox fulla ndax contacté nañ sax ñi nga xam ne ñooy entourage Ismaïla Sarr ngir andi ko Liverpool mu ànd ak Sadio di toj